li ma wax légui rek ngi ñaan entre Ethiopian Airlines wala ku xam Sénégal mu pour ñu jot valise parce que vraiment problème la te semaine ko donc suñu amul vraiment problème la pour jouer